Rewmi 24 TV bisimilah dal leen ak jàmm ci xibaar lundi 13 novembre mu mel ne rek jamono yi Ziguinchor mi ngi souffrir souffrir bu rëy rek rawatina nag ci nguurug Macky Sall kii di Alioune Tine njiitu réew moom nag yëkkati na rek ay kàddu daal di koy jëmale ci rek bato Aline Sitoé Diatta bi nga xamante ne rek dañu ko téye lu yàgg yàgg dawul moom mi di Alioune Tine maa ngay sàkku ci état wu Sénégal rek ngir rek ñu daal di mën a xoolaat mbir yi ndax kat ñii di waa Casamance sonn nañu lool rawatina nag ñi nga xam ne ñooy jaaykat ya rek di dem ak ak étudiants ya ak ñi nga xam ne rek ay hommes d'affaires lañ te ñooñu ñëpp rek ci bato bi euh, lañ daan dem ak ñëw mu doon loo xamante ne rek rek moom euh, ñoo gën a sonn ci Sénégal rawatina nag seen digganteeg force de l'ordre yi compte bu ñëwaatee rek daal di yëkkati bato Aline Sitoé Diatta ba rek daal di teg lu mel nii kon dina doon loo xamante ne lu métti lay doon ci askanu Casamance kon loolu doo jot na ñu daal di rek xoolaat bato Aline Sitoé Diatta bi rek bàyyi dem ak dikk ba mu daan def rek ngir kat askan ba jamono yi daal suuf ri lool lool.